Elage Seydou dal leen jàmm ci xibaar yéen kaay yi nga xam ne nag moom la xëyandoo bënd ba wëreegul ci lépp loo xam ne nag jëm na ci poste premier ministre bi nga xam ne njiitu réew mi Macky na ko supprimer ci réew mi Sénégal moom professeur bi dañu xamal ne moom kay jamono ji dafa gisul lenn loo xam ne daal war naa tax njiitu réew mi Macky Sall daal bëgg dindi lépp loo xam ne nag jëm na ci poste premier ministre bi ci Sénégal waaw moom professeur bi di ñu xamal kay lépp loo xam ne kay réewum Sénégal lépp loo xam ne jëm na ci wàllu démocratie dañu ko war xam ne réewum Sénégal direct ku koy feelu di ñu xamal kay moom professeur kay jamono ji ne kay moo war a ubbi seeni ba daal ne ci jamono jogee xam ne ne kay mbir moomee kay bu fekkee ne daal dafa war am mën nañ koo jaar ci lépp loo référendum eh, Robert Sagna daal daal yëkk di kàddu daal jëmale ci lépp loo xam ne nag jëm na ci lu ne mel laaj duñu duñu xamal ca jamono jooje maître Moussa Bobacar Thiam jamono ji nag jóge na fi nga xam ne nag moo di PS waaw yi jubali fi nga xam ne nag moo di parti APR di parti njiitu réew mi moom kay jamono ci la muy xam ne da nag moom di dem APR di parti njiitu réew ni Salif Sadio mi nga xam ne daal nekkoon na Casamance te génnoon fi jamono ji doon faju moom nag yëkkati ne daal dañu ko ndaje moom yoo xam ne daal a dëggu dañoo nekkee foofee waaye tamit yenn ci ay ONG yoo xam ne dañoo jàpp ne ñoom jamono ci lépp loo xam ne nag jëm na ci jafe-jafe yi nga xam ne moo xew foofee daanaka ñoom wutukaayu xaalis lañu ko defee yéenikaay bi di laas di ñu xamal ne moom

xam ne moom la amee ca noonu ca la lankee ca la ñu xeex ba daal di tàng moom li xam ne nag mooy Daouda Diouf ñu daal di koy ren yéenekaay bi di xamal ne que moo di nga xam ne daal def nañu ko doomam doomam joojee nga xam ne joojee yàgg na na koo jàpp yàgg na koo jege moom di ñu mu am jël yéenekaay ñaar ña koy jamono ji yoon teg na leen loxo ña ca des ñu leen di wër mu nekk ñaawteef goo xam ne daal ñi nga xervateur di xamal ne kay jamono jakarta la ñu ko tuddee waaw muy sàngara su yomb soo xam ne daal daanaka daal réewum Sénégal ndaw ñi bëri daanaka ñu ngi ciy jubal di ca naan tey nag jamono ci mu daal di nag nii ñu def Daouda Diouf daal ñaaw na lool ndax dañu ko rendi xat yi